sëñ Baara Jenn moo ko liggéey ci diggalal sëñ Abdul Ahad moom sëñ Touba waaye ñeenti weer la ko sëñ Baara Jenn <coughs> liggéey <coughs> ñeenti weer la ko tabax liggéey bépp ñeenti weer la ak fi ñuy julleeg fi ñuy jullee raxas waajalee néew yeeg jàkk jiñ ñu koy julleeg loolu lépp ci liggéeyam ñeenti weer yi la képp keroog ba àggee sëñ Abdul Ahad naan ko defoon naa ne faaw dana mat fukki weer ak yaar am at. sëñ Baara da ko ne hii Mbàkke xajuma ci dara fukki weer ak yaar waaw lenn lu ma xaj fukki weer ak yaar amut waaw kon noonu la meloon ndax pëstéef baa ko waral ak kàttan ga bi biñ ko defee ba mu daj sëriñ Baara liggéey na ko liggéey bu sell liggéeyale mbaar mais ngeen di gis ñu fay jullee ku wàcc ñu ko fay taxaw dox na ni bi mu ko liggéey ba noppi sax la yàlla dikk ko dogalam kon loolu mooy liggéey bu nangu liggéey bu nangu moom bokk bokk bokk na ci loolu man ci li ma gis guddaay bii mi ngi doon neuf cent euh, neuf cent mètres yaatuwaay bi cinq cent mètres xam ne yaatu na lool ñu war a bàyyi xel ci ni murid yi murid yi yëpp ni Serigne wootee murid yëpp xaj nañ ci biir barab yi. barab ba it armel yi moom Cheikh Abdou Lahad ko woon ba mu dikk mu ni ko damaa bëggoon ñu def fii armel dem naa fa ànd ak Serigne Abdou Khadir ba def fa ñaan ga foofee it fa la Serigne Touba jëkkoon a def armel yi Touba guy fukki sër lañ ko daan wooye ca jamono yu jëkk yi ndeg ment ya fa daan dem di sulli ñañ fay suul loola mooy saw su ñu randal si ko waaye foofee moom moo doonoon admir yu jëkk yi mu sant ko ko digal ko ko ba mu ko liggéeyee ba muy sotti defe naa juróom-ñett fukki millions yu tegal ñàkkoon na ko ci kere ba ñuy jébbali ceeb yi fekk na mu wàcc liggéey waaye Cheikh Issa waaye sëñ Abdou Latif mii moo ànd ak sëñ naar mii ñu ñëw ci sëñ Abdou Lahat ko jébbalee ceeb yi ba noppi nag sëñ Abdou fab ceeb yi tegal ko ci Abdou Latif ni ko dénkal ma ko naar mii sëñ naar téyewaat ceeb yi di difa bay ay ton ci gerte ak yëf di ko indi di ko jëbbalaat Cheikh Abdoulaye lii daal laa ci xam